ngi ñuy tuddee leneen maanaam mbir mi mbiru ñëpp la waaw moo tax bi may dugg alkaati bi di ma laaj naa ma ndax VIP yeeg yooyu ma ne ko man ñëw ma fi VIP man dama fi ñëw en tant que talibé waaw du ma fi xëccoo du ma fi buuxante te du ma def lu yàq. du ban message na nga am. boo xam ne yaa ngi koy jox waa Ndakaaru ci jàpp gi ñu war a jàpp jumaa bi. Ah, beneen bi ci topp mooy umma islamique bi muy Tidiane muy Xaadir muy Laayeen sëñ sëñ sëñ Muntaxa dafa wax ni. lii jumaay néegu yàlla la néegu yàlla bii nag jullit yëpp ko bokk message bi ngay jox waa Ndakaaru ak message bi nga xam ne yaa ngi koy laas umma islamique ndax man damay setu jal jóg yaa may dégg loolu moo tax du hasard que suñu borom jaarale ci setu jal jóg mu njëkk a demee ci camp jal jóg doxe fa jëm Touba du dëgg kon ci biir loolu euh, maanaam waa Ndakaaru waxuma la ñu jàpp jumaa ji waaye bu ñu jàppul jumaa ji jumaa ji jàpp leen ndax jumaa ji dina fi indi xéewal yoo xam ne dana feeñ ci ñoom waaw képp kuy waa Ndakaaru moo tax man ma gëm ne danañ ko téye man jàpp naa loolu man jàpp naa ne waa Ndakaaru danañu xam ne am nañ fi lu leen di indi lu fi newul woon nag waaw ndax xam nga tey jii boo demee Màkka a ah, ñi jàng danañu wax ne amoon na jamono ba ñuy signé pacte ba ak yéefar yi a ah, comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom doon woon bind ñu ni dañu wax ne ñu ni Seydina Aliou bind Muhammad rasulallah mais ñooñu ne ko rasulallah bi da koy dindi ndax ñun suñu gëmoon ne Muhammad mooy rasulallah moom la yàlla yoon yónni duñ ko xeex du dëgg xam nga coow bëgg a bëri ku tedd ki moom moo ko laaj fan la rasulallah gi nekk dindi ko ne ko xanaa xamuloo ni fa yàlla bind ne may rasulallah du ci kayit gi fay suñu borom bind aussi ne Cheikh Amadou Bamba mooy xaadimu rasul yaa may dégg nga xamante ne lañ doon contesté léegi tey Makka kan moo koy discuter ndax Mohamed mooy rasulullah danañ dem ba bis ndakaaru gi ak feneen kenn du discuter ni Cheikh Amadou Bamba mooy xaadimu rasul yaa ngi dégg man loolu laa gëm donc mais nag lu ci nekk waxtu woo ko suñu borom programmé rek lay am waaw waxtu woo ko suñu borom programmé ca lay am. lu ci nekk nag waxtu woo ko suñu borom programme dina am kii ñu taxawal mooy l'initiateur nga xam ne moo njëkk a muy marché bi nga xam ni. fii la ñuy jógee ci Ndakaaru jëm Touba tàmbali na ko Thiès di setu Jal Diop tàmbali ko fii ci Kans Jal Diop ba ni mu nekkee meeru Thiès daan na ko tàmbali Thiès di ko tàmbali kër sëñ Abdoulaye Yakhine monsieur le maire Talla Sylla muy taalibe Serigne Touba muy kenn ci njaboot Serigne Touba gi tey bu ñu ñëwee fekk ko fii nag ci dëkkub Jal Diop ñu indil Serigne Touba lii tey jii soxna Ana Faye am na mbégte tey jii maam Gayel am na mbégte ay sëtu jal Diop yëpp am nañ mbégte waa kër Seydina Limam am nañ mbégte waaye monsieur le am na mbégte ñu koy ñaan nag lii nag sa borom guddal fanam te li nga xam ni yàgg nga tàmbali nga ko muy dox bi nga xam ni tàmbali nga ko ñu ko daan dox daan dem tuuba ñi ngi ñaan ci barke Cheikhul Khadim yàlla nga fekk lépp te luñ fi def nag am ci ngërëmal Serigne Touba jërëjëf monsieur le